tey euh, seen masala bi daan na spécial parce que euh, euh, oustaz Sanjongu Mbeng lañ fii dalal ndax moom nee na tey dina indi wane xam-xam boo xam ne nii xam-xam bu bees la waaye téléspectateurs yi dañ leen di bàyyi rek ñu ànd ak moom mu nga xamante ne ni moo di alaaji Sanjongu Mbeng mu dégtal ñu lim ñu indi tey ci masala bi di nuyu oustaz man jaw bu baax a baax a baax aca sa sa waaw di wax ni fa tabaarkalaaw <laughs> fekk na wax dëgg fa yàlla ci eh, jooni na <coughs> ci kam-kam parce que dañu war a wax tey ci kam-kam ne dama war a wax tey ci kam-kam ah. parce que nag dafa am lu bari yoo kam ni dafa reer nit yi ñu bari xamuñu ko mm. loolu nag boo toogee fii nekk borom kam-kam danga ko war a leeral dëgg la ndaxte àdduna noonu la. Hmm. kam-kam def jafe yombul. dëgg la <coughs> euh, euh, hmm. dëgg yàlla tey jëmm Sandiougu Meng ñëwul te dañoo bëgg a wax kan moo fi toog tey réellement dana bëgg nga wax ñu yaay kam. dama wax ni li ma bëgg a wax ci kam-kam bi dama ne ndax kam ngeen butel bii lu tax euh, boo ko defee nii muy yëngatu. léegi loolu mooy xam lu tax ndax dégg ngeen nu muy def nii di def culluk culluk. déedéet parce que ñun koy dégg. waaw ngi nii nii lay def. ndax xam ngeen lu ko waral. am ndox moo tax muy yëngu. am la. dafa am ndox moo tax muy yëngat. léegi loolu mooy bi moo nekk ci biir moo tax muy yëngat. waaw ñu toog dafa leer bi macha allah lan nga xalaat ne moo waral kii bi quoi mu leer. kii dafa laaj laaj bu am sol uh-huh. muy lan moo tax fii leer. Uh-huh. lamp yi ñooy takk. waaw kam-kam. maa ngi wax ni ndax kam ngeen lu tax Oustaz tal suus ñëwul. macha allah ndakkam nga lu tax oustaz Tall Suus bu doon toog fii. ñëwul lu tax ñëwul macha allah. dafa tooy. Eh. feebar tooy. xam-xam bi yaa xam-xam ah, gis ne ñun ñu ñuy seetaan ci tele bi tey ci dimanche yi ku nekk yaa ngi toog sa salon. Mm-hmm. lan moo tax ñu ñuy gis. Mm-hmm. <laughs> laaj na laaj boo xam ni ku amul xam-xam du ko wallaay. ndaxte loolu nga laaj noonu wax dëgg fa yàlla nga xam ne ñi ngi toog di ñu seetaan ah. xam nga lu ko waral lu ko waral ki toog di ñu seetaan eh. dafa taal télé macha allah xam nga man kenn xameewu ma nii kenn xameewu ma nii est-ce que mën nga maa wax li tax tey ma solo nii tamit bu sol mu grand boobu macha allah eh, dina ko amul sax lii. Eh, dafa bëri xam-xam tubarkalla lu tax mu eh. waa ak bëri xam-xam tubarkalla lu tax. moo tax kii kaw ma. wallaay moom bu ko tontoo rek ma xam ne am na lu ko waral lu ko waral. kan nga kii li mu sol nii lu tax mu sol. waaw ak takk-takkam ah. bii. dafa bugg jekkaar. tubarkalla waaw bravo macha allah. oustaz dama lay laaj oustaz tey lu tax bambi mii ak ki xam ne moom moo di borom këram bëggante lool ba mu koy wax ki nga xam ne bonheur. oh nga lu tax mu demee noonu ñoom ñaar seen diggante dañoo buggante. waaw eh, bu ngeen buggante kañ moo ko wax bonheur bi. waaw waaw léegi léegi oustaz lan moo tax sooy bu di takk boppam bi te góor la. da koo nekk <laughs> loolu moo ko nekk. mais dañu gis ne man bi ma xëyee damaa sol yére ñëw fii toog lan moo tax ci sa xam-xam bu dee mën nga ma wax sama xam-xam. xam nga lu euh, sol lii mu sol takaw nii. toog nii. waaw ah. dafa bëgg fay weer. dëgg la dëgg la lan moo tax Moussa euh, sukka bu wéngalee musóoram boo nekk sukka mu ne la Samba. Eh. lii may wax du kam-kam tappale du kam-kamu caaxaan de kam nga moo tax ma ubbi kii bi naan. ndax lan. parce que da ngaa sonn dama mar. <laughs> waa man Moussa dama am lu ma lay laaj xam yow jeexal nga ba ba naas en tout cas. waaw. man oustaz damaa bëgg nga wax ma benn aaya nag wax dëgg fa yàlla ndax. laal mu ngi daara jël yaa ngi bëgg léegal gaal gi nag. oustaz. ah non aaya non aaya bis ko doo ko. ayi bu ci duggee damay bàyyi. Eh, bul bàyyi ba baam bi bàyyi man kenn du ma wax lii di di reetaan de bu ngeen boolee aay damay bàyyi. léegi man man ma laaj man damaa bëgg a laaj mu laaj yow eh. damay laajte sànq dafa am benn waxtaan bu amoon sànq am lu soñ bu doon wax uh-huh. mu ne nit buñ la tooñee comme ki ñu doon tuumaal benn góor jigéen nangam ak i sàngam yooyu mais oustaz ma dama lay laaj parfois nga gis nit yóbbu nit police te waxul dëgg moo tooñ ba pare jiitu ci yoon loolu lan la ci charia wax oustaz eh, danga koy laaj ñi ko kaam d'accord jërëjëf. Euh, laaj bi may laaj moom xam naa ne su ko xamee. Uh-huh. bay boo ñu jëlee Oustaz Salatou fii. Uh-huh. te indi ko. maag moom bi ñuy xëy si suba ci bunt rajo bi. dañoo gis ay picc yu bari yuy naaw romb ñu. waaw picc yi laa bëgg a xam fu ñu jëm. ak fi ñu oh, dégg <laughs> loolu laaj boobu laaj bu ndaw la ka laaj bu parce que xam nga loolu man euh, dema ko ay. picc yi nga xam ne moom la gis muy naaw di dem. waaw xam nga dem. dañuy dog seen soxla. tubaarkalla oh macha allah lu lay dañuy lan macha allah doyul xaw ma man nga man nga euh, euh, tey dina kontaan si si la seetaanee. non bàyyi ko gannaaw amul benn eh, problème en tout cas balaa may tëj danga may may ma remercier sama yaay booy te mu ma génne si. sa yaay fu waaw fu waaw waaw ah, kay maa ngi koy gërëm bu baax a baax moom Guèye Ndioro. Ah, ah, bul waxaat <laughs> bul waxaat. bul merci beaucoup merci beaucoup bëri nga xam-xam da koo cëkk kay da koo